madame la ministre moom lay nuyu di nuyu ministre des finances ministre du travail euh, di nuyu ngeen ànd ñëpp di beral nuyoo suñu jigéen euh, Diédi Diop ñu bokkal région Saint-Louis ñu lay nuyu bu baax a baax madame la ministre di la félicité ndax teg nga sa tànk fi nga ko war a teg ndax li nga wax mooy li ngay def rek mooy fast track keroog ci commission yi li nga waxoon dañ ma woo à Ross Béthio ñu ne SEDAF bi ñëw nañ fa di xool naka lañ koy réfectionné kon jërëjëf ci loolu ak unité bi nga leen a defal foofu ak ANCAR kon ñu ngi la ciy gërëm bu baax kon ni ma la waxoon yaa ci kon ni ma déggoon ci yow ñu ngi ci te ñun dafa am ñaar yoo xam ne dafa ñu parce que président Macky Sall dafa wax une autonomisation de la femme ba pare wax euh, autosuffisance alimentaire te autosuffisance alimentaire ñun les femmes du département de Dagana Euh, dafa ñu soxal parce que ku ñu dagale ñu bayum ceeb ñu bayum maraîchage yëpp di la wax nag ñu la ci programme autosuffisance en riz bi passé jigéen ñi département Dagana tey boo demee vingt six unités de transformation ñu ngi fa rizerie te boo boo te li leen manqué mooy fonds de développement kon nga jàppale ñu ci bu baax a baax boo demee commune de Niit dem commune de Ndam dem commune de Gaaye dem commune de Bokkal ñooñu horticulture bi gën di def nga jàppale leen ci ay unité de transformation ak fonds fonds yoo xamante ni dañu permettre ñu gën a euh, jàppale président ci programme auto autosuffisance euh, alimentaire bi madame la ministre ñu ngi lay wax aussi nga jàppale euh, waa dellu si waat ci commune bi ñu parce que dañuy def xaal yi ñuy def ak yooyu yëpp unité de transformation yi def si baax nga jàppale yooyu yëpp la jigéen ñëpp jigéen ñi dañuy comme ni ma ko waxee ni ñun ñoo bokk vallée bi soow mi dañ koy faral di tuur nga jàppale leen ci ay unité transformation laitière baax na ci itam nga jàppale ñu ci ana mu defal jigéen ñi ay pisciculture parce que nag département de Dagana boo nee riziculture nii élevage nii euh, pêche loolu moo gën a nekk suñu liggéey di la wax nag ñu la ñun daal suñu mébét lenn rek la mooy woo la invité la nga ñëw mois d' avril nga ñëw dans département de Dagana di nga fa fekk ay jigéen ñuy béy cent hectares di def euh, cinquante hectares def quarante hectares ñu la activité yi nga xam ne moom la département de Dagana di def te nga jàppale ñu ci fonds yi ñu mën a commencé liggéey euh, bu janvier la ñuy démarrer campagne hivernale contre saison bi nga jàppale ñu mu bay wan la nga jàppale président activité yi nga xam ne moom la département Dagana bi def ñu wan la ko ñu jigéen ñi la ñu xeexoon démb tey xeexoon démb tey ñu ngi koy xeex